tamit dimbali woo rek bul fexe ba jéem a <laughs> jéem a ci wet jaar ci benn émission tubaab nekk fa def reportage en français ba ne ko le coup de la xaw ma lan dans le poing boobaa dafa lay fekk yóbbu la <laughs> léegi nag <laughs> Ousmane Ngom nañuy seeti ndekete Sénégal cooli li muy bari bari yëpp ñoom yoxosu nañu Ousmane Ngom ne ko ci coppet ne ko ci pëyi yóbbu ko Ousmane Ngom nag xam naa ne bii paa am na lu ko war a metti ndax promotion convocation bi jàllul xaar ñu waay. waa mi mi mi Ngom mi Ousmane mi tu es mon vraiment Ngom le grand Saint-Louisien kon gars yi yow rek yaa ñu mën a li xew parce que réew mi kenn yëgu sa jël si bi ko wax après avoir convoqué Ousmane Ngom ay ca lagal ñu xool yi <laughs> ah. c'est les lumières de soleil euh, maa ngi am mbégte man Ousmane Ngom euh, dama tëdd ba xaaju guddi euh, ñu daanee sone mooy barke démb ci talaat bi tey la ajjuma barke démb ci alaro yi tey la ajjuma man daal tëdd naa ñu fëgg waa gendarmerie ne salaamaaleykum ma ne soxna si yëndul soxna si yëndu ñu daa dee taxaw nañu fii la Ousmane Ngom dëkk man leen waa maa ngi fi may waxee waa maa ngi boobu maa ngi taxaw di waaj a jël pour julli bàyyi ñu ma ma lal sax sijaada war a tegg sijaada bi ma ne maa ngi ci lañ ma yenu yóbbu may ñu ma ma woote wax ko waa parti bi ñu daal di koy yëngal journaliste yëg ko may ñu ma fenn foo xam ne yëkkati naa fa sama téléphone pour woo nit man nag maître Madické Niang waxoon na fi benn wax ñu yaakaar ne wax jooju da ko doon wax maanaam pour nit ñi yaakaar ne rek day yëngal déedéet Macky Sall nag par lettre alphabétique nag la ko toppee après Baara après Samuel après ñooñu nga xam ne jaar nañu man mii ci boppam la bëgg a jël tëjlu ma lu ne laaj nañ ma ko xiifal ma. nee nañ ma ba sax kaay ñu wan la fi nga nar a dugg wan ma ko ci en vidéo fi ñu ma nar a yóbbu nag. maa ngi wax samay mbokk maa ngi nii man Ousmane Ngom dara jotuma wér kémm ni dërëm liñ ma wan nappe la kaso bu ndaw tàng jër boole ko ay gangster yoo xam ne ñooñu boo xoolee seen kanam xam ne du ñu ay senegale may wax nag gaa yi nañu ànd ak tuuti dal tuuti ku ci mën a nag jéngu na nga jéngu ndax ñii wax bañ a wax ñun ñëpp fa nañu mujj wax bañ a wax laa wax ñun ñëpp ca kaso ba dañu mujj waaye man dey Ousmane Ngom maa ngi lancé appel di xamal nit ñi ne ragaluma kaso tey ragaluma kaso ëllëg ndax man maa nekkoon ministre de l'intérieur xam naa fi kaso yu baax yi nekk ak yu bon yi chambre yu baax yi ak chambre yu bon yi du kenn ku ma mën a menacer ba ma dellu ginnaaw xaaral may may le ma rek allo ah dafa bibe dama ne woo nañ ma di ma bëtti bëttee naan ma ci nii nga bëgg ko war a ca naa nga bëgg ko ca kaso la ngay jëm man nag yéen journaliste yi taxaw may def déclaration bi seen kanam dama leen bëgg a xamal ne que j'ai pas peur man damay dem jusqu'au bout takk naa samay bagage ba pare damay dem aw lu may ragal luñ ma woo ma fekk si lañ ci luñ ma jiiñ te jëluma ko sax bu fekkee ne ma bëgg a yóbbu danaa dem allo oui waa procureur de la république waaw waaw maa ngi def conférence de presse maay wax ak journaliste yi nag ragaluma nga ne ah ma woo Baara journaliste yi may la ma tuuti rek nee na ma woo Baara Gaye xëy na peut-être dafa am question bu ñu koy laaj par rapport ak man allo waa Baara Baara looy jooy lu xew Baara mais ju sais que ne tu à Rebeuss quarante cinq personnes Baara non c'est Baara mbokk yi maa ngi am di leen xamal ne àdduna loo gis ci adduna waxtaan la man yaakaar naa ne ñun le monde libéral war nañu toog waxtaan ndax Macky Sall mu bañ ko mu bëgg ko deretu libéral mooy daw ci boppam on est des de parti. nañu war toog waxtaan xam ne jàmm ci la lépp xaj man de wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñu toogaat waxtaanaat waxtaanaat ñun waa PDS waxtaan bii nga xam ne moom la waxtaan nag moo ñu jéem a waxtaan suñu biir bu ñu waxtaanee suñu biir lii nga xam ne ñu koy jéeñ naan ñoo jël ak jëluñu ku jël xam na waaye ma nag du ma ne jël naa ndax duma ma dugal sama bopp waaye dama bëggoon ñu waxtaan. lima ma baara wax léegi dama bëgg ñu waxtaan waay waay waay waay waay waay waay nañu waxtaan koor gaa ngi ñëw nañu waxtaan li ma baara wax ñëw ma wax waaye dañu waxtaan <laughs> waay waay Macky Sall mii waay mi Macky mii kafula mais ce ce ce président la il il, il se permet de tout hein mais kii kafura <laughs> bon c'était juste pour wane nag euh, boo duggee bu la gendarme bi laajee boo génnee lu nekkee yow journaliste yi waaye li ma baara wax léegi dama bëgg ñu waxtaan gars yi Macky suñu frère la on est de même parti nañu waxtaan gars yi nañu waxtaan nañu waxtaan nañu waxtaan ah. <laughs> mais Macky là ce qui ce ce qu'il ce qu'il veut su ko defee mais mais bu boo jëlu sax di nga joxe dama ne nañu waxtaan <laughs> ah gars yi <laughs> xamante nañu mais nañu waxtaan wuy leen ma egg naa sama kër climatisé lal bu nooy am loo xam ne kenn amu ko maanaam dugg di génn di génn di dugg fu neex yenn fu neex fanaan uta kaso gars yi ñu waxtaan li <laughs> ma baara wax